wal minna. ma diggante ma dikkee ba ma la gisee. dolli ci ma xam la xam na Serigne Touba dëggu na ci yow boobu laa la bëggaloon sama bopp nga Serigne Touba boobee ak sa jotaay bii xamewoo ko eh, adduna nag moom la suñu boom bind nii bind nu nekk ci àdduna xëy na kër kër du ci mën a ñàkk te it kenn ku ñu la yàlla dogal ci moom il faut mu fa fa mu yëngatu dama bëgg nga xam ne bëgg Sëriñ Tuubaa te muy dëgg te yàlla tax moo gën a àdduna ci biiram wallahi wallahi wallahi bëgg Sëriñ Tuubaa muy dëgg ngir yàlla moo gën a àdduna li ci gouvernement yi ci àdduna yëpp bëgg muy dëgg moo gën moo ci moo gën nit ki dundam képp jox gouvernement yi yëpp jox ko adduna ngi si biir lu koy jëriñ fi ne rek coono rek jaaxle rek tiis rek képp dund gi boobu lay doon ba jeex dégg nga bu baax santal yàlla dëgg la loolu lii yëpp yëpp lépp na xëy na nattu la yàlla lim mu dogal ci nit ki rek faaw mu waaye liy dëgg yàlla dafa wax ne eh, adduna bu fekkoon tey moom ñu ko bind moom ko da koy yemale woon ak laafu yoo laafu yoo maam mu adduna ak laafu yoo bu ko fekkoon ne loolu ñoroon na ko bu ko yemale adduna ak laafu yoo ci am kaasu ndox bu mu naan da ci lépp yéen ma ne ngëneem la ngëneem la waaye yàlla mooy dëgg li wax mooy dëgg waaw <laughs> non dëgg dëgg exemple bi mooy Serigne Touba. Uh-huh. ko gisee ba ñu gis bu gis noppee gis gis bëggu fi dara gisu fi dara nekku fi ci dara lu lu ba ñu ko noppee gis loolu mooy dëgg waaye nag yàlla mooy defe nii itam ci coobareem waaye yàlla nu yàlla gindil boppam te xiir nu ci boppam ci xiir nu Serigne Touba mooy wax ci na ma la bëggi woon xam ne sëñ Tuubaa dëggu na ci yow ma bëgg la ngir sëñ Tuubaa xam ne sëñ Tuubaa dëggu na ci yow ma bëgg la ngir sëñ Tuubaa dara soppiku ci ba ci sa jotaay bi loolu rek moo la moo la fi nekk li sadinatan bikun lil janna min daari minan yaasal minna li sadinatan bikun lil janna min daari minan yaasal minna